الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci daje bi ñuy amal talaata bu nekk insha allah muy jóge fii ci masjid saad ibn abi waqas ci Parcelles Assainies unité 21 sunu dimanche tey bi di 15 mars 2022 mooy dëppook 12 chaban ci weeru chaabaan la maam yi di wax baraxlu ci atum 1443 te ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gàddaayee ba léegi laaj yooyu nga xam ni mën na jaar ci 77 814 42 20 comme ni mën a jaare ci 77 275 01 91 wala yow mi bokk ci groupe jàkka ji nga jaarale ko ca at miya ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mboolem ñi siq liggéey bi ci ñiy laaj ak ñiy jottali ak ñiy tontu yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu nangul ca jagleel ñu aafiyam fi dunya wal axira sunu laaj bu jëkk soxna si dafay laaj dafa woor ba boori timis mu yëg ne biiram bi mi ngi metti ak régal ya nga xam ne dafa war a génn waaye nag yàlla def na ba bi jant bi sooyee ba pare gannaaw ba lay doog a gis deret ndax loolu mu yëgoon ne régal bi mi ngi ñëw ndax loolu day yàq kooram déedéet mbokk jullit lay yàq koor mooy règle ba nga gis ko mi ngi mel ne rekk tey am saw nit ki safoon saw lool taxul njàppam yàqu fii ak am lu ca tuuru looloy yàq njàpp ma it noonu la deme su ko defee même bu doon dañoo dog ba pare cinq minutes après deret ja génn teewul sa koor ga baax na xamal it ne su doon Euh, deret bi daa génn cinq minutes avant ñuy dokk xamal ni bi su kër ak boobi itamit moom baaxul bu doon te ca xëdd ba dañ lay wax mooy yow mi nekkoon di gis règle waaye avant fajar jot wóor na la ne moom sa règle bi dog na même bu dee fi mu la wóoree ak fa waxtu wi jote minutes la loole du tee bi baax na contraire ba it bu doonte ne ni sa deret dafa jeex waaye fi nga ci amee yaqiin booba fajar jot na doonte ne cinq minutes la dañ naan la ah bis keroog kat xamal ni du bis bu baax ci koor bu la neexee sax di lekk ka naan ndax bi fajar di jot fekk la ngay laab kon loolu la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala aalam suñu ñëwee ci suñu ñaareelu laaj mi ngi aju ci professeur bi di laaj lan moo war a nekk ñoom seen position ci grève yi nga xam ne ñi ngi koy def waaw alhamdulilah ñi ngi ñaan yal na grève jóge ci suñu réew yi te loolu képp war koo ñaan xam leen ni suñu réew yi ñu ngi bokk parmi les pays les moyens avancés mooy réew yi gën a ndóol ci àdduna bi suñu réew yi te la bokk li ñu soxla woon mooy pouvoir ak ñëpp ñu ngi jiite joxante loxo ñu liggéey ngir soqali réew mi waaye ku nekk jàpp di xëcc sa boor loolu mbokk baaxul suñu borom mu ne buleen leen juuyoo kon da ngeen na sax seen kàttan dem droit de grève àdduna yëpp reconnaître nañ ko waaye nag yow jullit xamal ne jullit nga avant ngay nekk syndicaliste su ko defee lépp loo xam ne nii syndicat ba ma ngi cay woote mu nekk loo xam ne àq la boo xam ne yow mën nga ko jot ca door ca lor keneen ngalawaay loolu mën nga ànd ci xeex boobe waaye bokk ci syndicat ba bu mu tax mukk ñuy woote loo xam ne wóor na la ne lii du àq wala ña ngeen koy laaj mënuñu ko ngay ànd ci xeex boobe te it ñuy bàyyi xel élèves yi nga xam ne dangeen leen di lor nekk ci benn année boo xam ne yow boo saxee ci grève bi naam mën na am la ngay laaj nga jox ko waaye élève ba moom da nga sacrifier aneem nga la waaye nañu xam ni diine lislaam mooy diine isaar mooy di suñu borom mu ne wa yusiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa julit dëgg-dëgg mooy xool lay aqam waaye xool aq mbokk julitam mu nangoo sacrifier aqam ngir sauver aq mbokk julitam ndax la loolu lam koy jural ci àllaaxira loolu moo tax ba ngalawaay ñi ngi ñaan képp kuy nekk ci koor boo mën a doon continuer laaj say àq waaye nag bàyyi leen xel aussi ñi nga xam ni seen yoon nekku ca mooy bu dee médecin ya malade yi ngay seetaan ñu dee seen yoon nekku ca yéen professeurs yi élèves yi ñu sacrifié te ña ngeen di xeexal ñoom seeni doom ña ngi bitim réew ñooñu seen yoon nekku ci ngalawaay ku nekk ci yéen na jiital ragal yàlla ba lépp lum cay def mu xool ca yàlla bala caa xool intérim wala xool ab syndicat mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam bu dee suñu ñetteelu laaj kii moom dafay laaj mu ne waaw ndax bu ñu demee ba jant bi lang di waaj a suux dañu faa tere julli yépp julli farata ak naafila na am loolu am na borom xam-xam yu ko wax waaye day la gën a nekk ëpp tegtal mooy naafila rekk lañ fa tere waaye ki julleegul woon tàkkusaan mën naa julli tàkkusaan yonent bi sallallahu alayhi nee na am benn rakka ci tàkkusaan avant bi di so ku mel noonu de julli na ci waxtu wa looloo tax moom julli farata moom terewuñu fenn foo xam ne nii dañ ko fi julli lu dul lenn ci ay boromi xam-xam waaye la gën a not insha allah su dee farata la moom yonent bi noonu mu waxe ca soga noonu la waxe ca fenk ga nee na ku am benn rakk ci ci ci jullik fajara avant jant bi de fenk ku mel noonu julli na ca waxtu wa kon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam suñu delloo suñu ñeenteelu laaj kii moom def ne dama nekk ci benn hôpital nekk fa ka nga xam ni mooy gérer mbiru hôpital ba may def commande ca la fa nekk lépp ca loolu bokk na ca il faut ma commander alcool il faut it may joxe alcole bi waaw loolu day mbokk jullit li ñu lay ñaan mooy nga waxtaan ak ña fa nekk post boobee yow nga jóge fa ndax jullit du bokk ci ña nga xam ne dañuy commander ay alcool ak di distribuer alcool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sàngara yàlla rëbb na ci fukk bokk na ka kay jënd ka kay jaay ka kay denc ka kay yenu kan ka yenu di ko indil ba baa mu nekk fukk loolu daal nga góor góorgóorlu demandé post boobee moom nga jóge fa yow jullit xamal ne loolu moo gën ci yow doonte ne naanoo sàngara wallahu subhanahu wa taala aalam suñu delloo suñu juróomeelu laaj kii def na waaw suma duggoon ci oto mënuma jullee lu dul ci biir oto bi ndax ba muy sujjuut damay sujjuut ci chaise bi nekk sama kanam wala damay junj noonu rek déedéet mbokk jullit heure bu dee da ngay julli ci oto walla avion julli ga lang ca man danga ko cay def su dee man ngaa taxaw taxawal soo demee mën a rukkoo rukkool su dee ne nag mun loo sujjuut su boobaa da ngay la nga xam ne moom mooy say sujjuut bu doon mënoo fa rukkoo da ngay junju rukkoo ba sëgg sujjuut ba nga gën koo suufeel rukkoo ba waaye su jëbi doo ko jël di ko teg ci ci dara maadaama danga toog munloo koo teg ca suuf mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam suñu delloo suñu juróom bennelu laaj kii mu ne man day ab tayir la damay nekk di ñëw léegi nag askar yi ñuy def suba ak yooyu man euh, du moo nekk dikk lim damay def rek ba yëg ni def naa lu ëpp cent mu ne ndax loolu may def moom baax na wala dama war a respecté cent bi kese mbokk yonent bi salallahu alayhi wa sallam azkar yooyu mu wax tudd ca cent te man ko tudd ci laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shayin qadir nee na ku ñu bindal la téeméeri tuyaaba faral la téeméeri bakkaar yëkkati la téeméeri daraja mel na nga ko goreel fukki jaam te it bisu keroog kenn du la gën a rafet jëf lan la ci yonente ba teg xanaa lu dul koo xam ne da wax lu ëpp li nga wax kon noonu ngay def wax ba mu wóor na la li nga wax ëpp na téeméer loolu moo ëpp tuyaaba ka yem ca téeméer ba kese loolu lañuy wax ci subhanallahi wa bihamdihi képp ko xamne wax nako ko yon suba wax ko téeméeri yon ngoon say bakkaar buñ melon na duusi géej yit yàlla dala koy bal te ken du la gën rafet jëf ka koy wax lu ëpp téeméer koku mo gën ka koy wax téeméer kesse kon mi ngi nonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj ndax euh, jigéen ñi jël seen làmmiñ ya di ci def ay bagg ak euh, yu deme noonu lan la ci lislaam wax ala kulli xaal mbokk julita euh, liñ ci daan wax naka jekk mooy jigéen de nañu xam ne yàlla nee na dañ ko dundal ci toilette aw man yunashsha'u fil hilya neena jigéen dañ koy dundal ci di taar fam juddoo ca maternité ba lañuy bëtt nopp ya di ci def ay jaaro su ko defee dañu naan jigéen lépp lu mu taaroo loolu lu dagan la bam des loo xam ne da cay nuru nuru lu ay yéeféer ak loo xamee ne nii dafa doon loo xam ne nii lu koy lor la lii da ngay gis ni bu muccee ci ñetti yi lépp loo xam ni da cay nuru nuru lu yéeféer di ca nuru nuru lu góor di ca def lu koy lor ñetti yi bu muccee ci taarub jigéen la ca des lépp dagan la amma di taaroo loo xam ne da koy lor di taaroo loo xam ne da ciy nuru nuru lu yéeféer di taaroo loo xamee ni nii ah, dafay nuru nuru lu ay góor lii moom jigéen du ko taaroo bu dee nag la yàlla xaraamal moom loole moom ñëpp xam nañu ko te bokk na ci lu bon loolu di xeesal ba ñuy xeesal wala seen tuñ yi ñuy jam wala seen karaw yi ñuy yokk yooyu da ngay gis moom islaam da koo tudd na ko xaraamal na ko waaye li lislaam tuddul aada boo mën a dem am nañ façon toilette yu bokkul ak aada ña ca des su ko defee daal loolu la ñuy wax wallahu subhanahu wa taala alam suñu delloo ci sunu juróom ñetteelu laaj ñaari laaj la yu ñu tënk ci benn laaj kii dafay laaj mu ne ndax nit ki lii di azakaam mën na koo jëndee ay ndogu jox ko nit ñi ñu dogu ci weeru koor dañuy wax mbokk déedéet azaka ak dogal nit ki weeru koor loolu bokkul ñaari jaamu yàlla la yoo xam ni bokkul azaka àq bu yàlla teg sa alal fuqaraa yi moom ko ak masaakiine yi danga koy jël jox leen ko ñoom nag ñoo xam luñ cay jënd dañ cay ndogoom dañ cay jënd yéreem dañ cay fay luwaasam ñoom ñoo xam waaye amoo droit di leen ko defal loo xam ne nii day nekk ay dund walla ay leneen kii moom dafay laaj mu ne waaw ndax comme weeru koor moom weeru barkeel la ndax mën naa avancer sama zakkaat bi ma waroon a génne masalan ca korite ga ma génn ko ci biir koor gi waaw lool de moom boroom xam-xam yi ëpp ci ñoom nangu nañ ko boroom xam-xam yi ëpp nangu nañu nit ki jiital zakkaatam ngir dabu ngëneelu ay bis yu tedd lu mel ni weeru koor wala fukki fan yu jëkk ci tabaski ak yu demee noonu loolee euh, lu dul nag mazhab Malik ñoom d'accorduñ ci loolu ak ñi gis ne mazhab Malik ndax Malik ak ñi gis-gisinam ñoom dañ ñu zakaat waxtu la comme ni julli nekk waxtu comme mënoo julli ca waxtu wi jotul kon mënoo génn zakaat ca waxtu wi jotul waaye bu ñu xoolee li ëpp ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo tegtaloo ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam xiif amoon na ci madina mu ne abbas génneel zakkaatu ren ak zakkaatu déwén yépp ñu ñu ñu joxe ko benn yoon loole kon euh, ñu bàyyi xel ci loolu lu dul nag même boo demee ci mazhab Malik nee nañ bu dee waxtu wa ngay génne soriwul masalan lu mel ni comme ki Chaban euh, bi nga xam ne presque un mois moo des loole moom dañ ko mën a nangu waaye nag bu dee daa sori loolu ñoom duñ ko nangu kon daal ci gàttal li ñu lay wax mooy bu amul benn problème li gën mooy yow bàyyil sa zakkaat ba mu war waaye nag bu dee am nga xiir ci dabu bis yu xam ne nii dafa am ngëneel wala nga gis aajo ci fuqaraawu yi aajo boo xam ne nii teer na lool te yow mënoo jël xaalis dimbali leen te nga jël sa zakkaat jiital ko loolee da gis ne la ëpp ci boroom xam-xam yi nangu nañ ko wallahu subhanahu wa taala aalam suñu juróom ñeenteelu laaj kii moom dafay laaj ndax man bu may julli su ma gëmmee lay concentré wu may raga may laaj nag ndax loolu du yàq suma julli waaw boo demee ci téere fuqaha yi day la ëpp ci ñoom bu ñuy wax ca yañu sib ci biir julli bokk nañ ca ngay julli di gëmm ndax yonent bi alayhi salaam bu daan julli day xool place ba muy sujuute loolu kon mooy la nga xam ne mooy am am na yépp ñoo xam ne la tax ñu sib ko dañ ne en général noonu la ñuy jullee dàqantewul nag ne même ñooñu nga xam ne dañ ko sib nee nañ bu dee ne am na loo xam ne dalaa wër ci sujaada ba ngay sujuute ak loo xam ne nii mi ngi la itteel lool nga gëmm ngir bañ a xool loolu gëmm googu kenn terewoo ko mi ngi noonu bal boo dellu woon ci la nga xamee ni nii ku mel na ay imam nawawi ak ñi gis-gisinam ñoom dañu naan gëmm ci julli amul luñ ciy sib xanaa lu dul nga ragal danger ñëw ci yow wala ñëw ci keneen soo ragalee danger ñëw ci yow fa ngay nekk kat mën na am na ay jaan wala ay xaj wala xale yoo war a su boobaa sib nañ ngay ngay gëmm mais bu dee amul benn danger sibuñu nga ngay gëmm doonte ne ne niñ la ko waxee rek ca njëlbeen la gën daal ci julli moom mooy ngay xoole ba julli ga mat lu dul nag am na ngant boo tax mu nga ngay def loolu wallahu subhanahu wa taala aalam suñu delloo ca suñu fukkeelu laaj kii moom dafay wax ni dafa bokkook ay nit ci chantier dañuy cotiser mu ne waaye man su ma demee julli ji tisbaar damay ñëw ñoom fekk ñu ngi may toog di xaar ci añ bi gannaaw ba nag may laaj waa lii moom nan la ko lislaam gisee waa ni ko lislaam gisee day mooy loolu ngay def lu baax la ay góor lañu dañoo waroon a ànd ak yow julli ji kon añ ba ñuy jël di ko yemele ak waxtu julli loolu jaaduwul su ko defee waxtaanal ak ñoom añ bi nañ koy teg avant tisbar wala après tisbar wala ñu tibbal la waaye daal ñoom julli ji wuñu añ ba ñuy imposer tax yow it nga bàyyi julli ji loolu moo ëpp naa def mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw lii nga xam ne mooy suñu fukkeelu laaj bi ak benn kii moom dafay wax dama nekk di julli suñu kër gi ñu nekk am ku nekk di fëgg ca suuf léegi nag man affaire bi vraiment jaaxal ma xoomoon dama war a su ma sama naafila gi boobu nee na day naafila ndax loolu dara nekk na ci waa ala kulli xaal képp koo xam ne nii danga gis yaa ngi nekk ci naafila mu nekk ci aajo boo xam ne mën na am mu rëcc la day loolee la gënoon muy profitool naafile ba daal koy gaawal indi àq ba ci nekk masalan bu la neexoon yem ci fatiha rukkoo def sa ñaari sujud sëlmal dem ci aajo boobee nga bañ mu rëcc la loole da ngay gis ne islaam bañut loolu amma bu dee ne la nga xam ne nii moom mooy farata julli farata moom kenn du ko dagg ngiree euh, ay aajoy doomu aadama xanaa lu dul mooy nga gis ku nekk ci lor mooy bu dee ne julli gi moom boo ko daggul ah da nga gis koo xam ne dana loru islaam danaan la daggal farata bi ngir dàq lor boobee maa nag bu dee ne moom naafila la su boobaa lay tax nga dagg ko rek mooy loo xam ne nii dafay indi ci loo xam ne nii ak coono lay indi luy nar a indi coono moom mën ngaa dagg sa la donte ne boo amoon pexe gaawe ko bañ koo dagg mooy la gën amma nag bu dee farata moom dàq lor dong boo xamee ni nii mooy boo ko daggul euh, bakkan man ca rote walla mu gaañu ca gaañu yu metti loolu rek moo war a tax ngay dagg sa farata wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu delloo ci la nga xamee ne mooy suñu fukkeelu laaj bi ak ñaar kii moom dafay laaj dafa gis benn waay boo xam ni dafa gañe loterie daal dem takk ca jabar daldi di cay tabax kër mu ne nag ndax moom sëy boobee dana nekk loo xam ne nii lu daggan la wala julli googee kër googee ku ci julli danga am julli waaye ala kulli xaal sëy boobee dana nekk lu dagan soxna sam jox can ba can googee mu yeyoo ko soxna si moom amu ci benn bakkaar soxna si amu ci benn bakkaar ndax waa ji moo moom alal gi kooke am na droit moom jël ko waa ji kay nga xam ne moo def loto boobee moom moo am bakkaar ca gañe gam gaño loto ba waaye sëy ba moom dañ naan sëy bi baax baax na borom xam-xam yi di wax ci can gu baaxul rek mooy loo xam ne dañ haramal, xaraamal ki indi won Euh, keesug sàngaraam cene ko ki indi mbaam xuux cene ko ak lu deme noonu waaye bu dee jëmmi xaalis bi la yaa ko faggoo fu xaraam loolu moom sa problème mu bopp la amma soxna sañ ko jox moom dagan na ci moom canam la sëy ba dañ naan baax na kër ga nga xam ne it da ko caa jënd kër googee dara nekkul ci ñu julli fa dara nekkul ci ñu julli fa boroom xam-xam yi fi ñu wóotee mooy kër gu ñu sàcc mooy kiy nangu këru jàmbur ci force ndax kër googee mënees na fa julli am mu ni si fa julli loole da ngay gis ne am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo tegtaloo rek xadis yi yonente bi alei salaam suuf yàlla defal na ma ko jàkka kon ku fa julli ah, ah, dara nekku ci mais waa waa jooje nga xam ne nii moom moo sàkk suufas jaambur moom ci boppam moom bu demee di fa julli dañ naan ko fii ngay julli du sa àq ci gàttal daal mooy yow mii aji laaj ji xamal ne kër ga julli fa dara nekku ca wallahu subhanahu wa taala alam waaw suñu delloo ci suñu fukkeelu laaj ak ñett kii moom mu ne man dey dama romboon benn xaj xaj bi fóon suma yére man na suma demee kër ga summi ko far ko ba julli ca loo xame ne nii dem na ci ñeenti waxtu mu ne nag gannaaw ba sama xel dem ci léegi ndax julli yooyu dama koy defaraat ala kulli xaal ci latte yi paase woon bokkoon na ca ixtilaaf ya nga xam ne ni waxoon nañ ko ci wàllu xacc su leen ni jëmmi laal jim la laal rekk wala fóon gim la fóon rek loolu taxul si yére sobewu fa fa juuyoo nekk ci boroom xam-xam yi kay mooy ndox may génn ca gémmiñam ndax loolu bu la laalee sobe la am du sobe boroom xam-xam yi am nañ ca jooyoo ba moo tax la gën mooy bu ko jullee mukk demal nga nga nga raxas ko amma bu dee yow lii ngay wax mooy nii nga julli nga ba pare mooy bépp sobe boo xam ne dafa nekkoon ci sa yére nga fàtte ko nga julli ba julli ga romb julli yooyu moom doo ko fayaat mi ngi noonu julli googu moom doo ko fayaat loolu mooy la nga xamee ne nii mooy la gën a dëgër lenn ci borom xam-xam yi daal dañu naan bu dee waxtu wi paaseegul moom julliwaat ko bu dee waxtu wi paaseegul waaye yar waxtu wa paase moom ñoom ñëpp dëppoo nañ ñu ko julliwaat doonte ne boobu waxtu wi paaseegul it sax bu ñu xoolee tegtal yi gën a dëgër mooy loolu jarul julliwaat maadaama julli nga ba sëlmal mi ngi noonu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na saxaaba yi ba mujj mu summi ay dàllam saxaaba yëpp summi seen dàll bi mu sëlmalee mu ne waaw lu tax ngeen summi seeni dàll ñu ne ko dañoo gis nga summi say dàll moo tax ñu summi suñu dàll mu ne man jibril def maa dikkal ne ma sa dàll yi daa amu sobe moo tax mu summi ko waaye gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reprendreul julleem dafa summi dàll yi rek continuer fa mu yemoon loolu woon bu sëlmaloon doog koo xamit reprendre julli ga insha allah wallahu subhanahu wa alam amma kii day fukkeelu laaj bi ak ñeent mu ne seen benn mbokk la bu nekk bitim réew ñu may ko soxna si fii waaye toog nañ lu yàgg gisante woo mu fase ko ndax soxna soosu dana jàppe idda déedéet mbokk jullit képp koo xam ne mook soxnaam dañoo sëy même bu sëy ba defoon dix ans ñoom ñaar mosuñoo bokkul lal même bu ñu nekkoon ci benn dëkk te mosuñoo bokk lal bu ñuy tëdd su boobaa bu ko fasee idda amu fa place bañ ko fasee ba lu ñu fa jóge mën nañ koo may keneen am na nag loo xam ne dafa jege ci nuroowul mooy bu doon waaja daa faatu su doon waaja daa faatu moom même bu dee mësuñoo gisee teewul soxna sa day ténji te soxna sa day donn mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj man day damay gérer kees su ma wàccee damay verser lépp dafa amoon nag koo xam ni dama ko waroon a delloo monnaie mu ne ma sama monnaie bi boo ko lijjantee sarxel ma ko ma fàtte ko nag daal koy verser léegi nag man dama xamul ndax man sama xaalisu bopp lay jël sarxe ko wala ëllëg bu may defar kees man naa caa jël weccit boobee sarxe ko na am maadaama danga dugaloon ca kees ga loo xam ne bokkul ci liggéey ba li xam nga ne xaalisub jaambur la mu ne woon nga sarxel ma ko kon kay ëllëg ci si booy defaraat kees som boobee nga ci dugaloon ca bokk ca som boobu ngay récupérer daal di koy sarxel borom comme nam la ko sante wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom mu ne mi ngi nekk fii ci États-Unis léegi nag dafa demoon ci benn restaurant benn mbokk jullitam fekk ko fa na yow li ngay lekk baaxul te moom nee na produit dañ caa bind xalaal waaw ala kulli xaal moom mi la wax loolu day ñàkkul am na fu ko teg ndax Occident xam nañ ni jullit ñu bari duñu lekk lu dul loo xam ne nii lu xalaal la loolu moo tax ba la ëpp ci ñoom dañuy daal bind ci seeni lekk lu xalaal am na koy wax sax ne gis ne keesu jën ñu bind ca xalaal te xalaal boobu la doon cosaanam mooy mu am ay boucherie spéciale yoo xam ne jullit yi ñoo ko moom defar rendi rendinu lislaam waaye ñun ñëpp xam nañ ne li ëpp ci Occident du ñuy rendi dañuy rey imma ay euh, usines yoo xam ne nii ñooy defar ganaar yi dañuy dajale ganaar yi rek plus de mille ganaar am na benn fu muy jaar day dagg ba ba rek tasaare ko mu dem lu bari it dañ koy def ca nag yaag yeneen islaam nanguwut loolu même bu ko jullit defee baaxul islaam dafa xaraamal ci ñi lu ñuy tuddee daman masfuuxa mooy deret ba nga xam ne bu ñu rendee mu tuuru loolu daa xaraam ci lislaam nit di ko lekk looloo tax lislaam lu mu mën a doon dañu koy rendi ba deret ja tuuru yàpp wa ca des laab na bu ko jullit rendee baax na bu ko chrétien rendee baax na amma li ñuy tudde jëmmi rey kese bu jullit rayee kese wala yu uh, ab chrétien rey te rey ko comme ni nga xam ni noonu la ko diine christianisme moo jàngalee woon ca muy rendi diine islam jàngale ko ca muy rendi loole kenn du ko mën a tudde xalaal lu bëri ci ñoom nag dañu naan yàlla daganal na lekku chrétien yi no am yàlla daganal na lekku chrétien yi bi charte xamoo nuñ ko rendee waaye bu dee xam nga ne niñ ko rendee baaxul jullit chrétien ci yem yow jullit waroo lekk loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam walhamdulilahi rabbil alamin xam naa mbokk yi comme ni ngeen bokk gisee suñu boroom yegsil nañu ci trente minutes yi ñu charto woon ak yéen ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala liñ ko doon ñaan naka jekk lii mooy la nga xam ni moom lu ubbee suñuy xool tey ñoo wax leen ko lépp lu ca dëppoo ngërëmam yal nañuy wërsëgal ñu jëfe ko ca nangul ñu ko su dee njuumte am na ci it yal nañu yàlla xamal njuumte ya te xamal ñu fa dëgg ga nekk wër wërsëgal ñu ñu bàyyi njuumte ya ca toppi dëggug borom ba wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala wa sahbihi ajmain والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعلى النساء تقاتل الأخوان واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحا